laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah jëf euh, mbokk yi xam ngeen ni ba léegi ñu ngi ànd ak yéen ci euh, li nga xamante ni mooy bis bii nga xam ni Cheikh Mouhamadou Mountakha sëñ Mamor ni ma ko waxee woon rek moo ko woote bisub sikar te ku ne xam na ni sëñ Mamor lépp luy génn ci aw làmmiñ tudd yàlla moo ci féete kaw te bul fàtte ni maam Cheikh Ibrahima Fall moo ni woon doom lu neex waayu na wax waaye ñett yi ku doxal sama digganteeg moom ku doxal sama digganteeg moom loo wax baax na tudd yàlla togg aw ñam joxe liggéeyal sëñ Bamba nee na mboolem lu ñuy wax tudd yàllaa ci féete kaw nañ ma bàyyeeg moom mboolem jëf yi togg aw ñam muy leele moo ci kaw nañ ma bàyyeeg moom liggéey ba liggéey jeex liggéeyal sëñ Bamba ci féete kaw kon ñett yi sëñ Mamor yaakaar naa ki ko yor moo yor lépp loolu yi nag Cheikh Ibra waxu ko yem ci da ko wax jëf ko xam naa daa mel ni kuréel gaa ngi ñëw sëñ Mamor ñi ngi nii fas yéene ànd ak yéen ci liggéey bi ay vague lay def waaw li ngay gis géej waaw la Baye Fall def tey mhm. gis nga vague biñ topp ba mu dem mhm. beneen vague ngi ñëw di wër jumaa di wër pencum daaru Cheikh Ibrahima ne woon addoom ah, maay suuf ba yàgg mu ne may sën xam nga sën mooy nee na loo am sànni ko sànni ko ci sën bi waaye nag nana dana na leer booy wàq di gis suuf su set dëgg la Cheikh Ibrahima ngoog Baye Fall du añ bi hmm. Moustapha Baye Fall du reer bi dëgg la Baye Fall xorom see dëgg la xorom nag mënta ñàkk ci ñam ci ñam wi dëgg la ndagam nar naa aw yoon hmm. bu la médecin xoolee ba la mu lekk xorom waroo wër dëkk bi naan ba leen xorom yow lañ tere xorom yaa koy bàyyi Moustapha gis naa Yunus Yunus moom sëñ Abdou Karim gis nga ko nii gis naa Yunus moom sëñ Abdou Karim gis nga ko murit bi ma waaw gis nga Moustapha ah, ah. waa kër sëñ Abdou Karim ma gis nga lii histoire da koy bind mm-hmm. <laughs> Cheikh Ibra Fall ngoog uh-huh. signalement très noir debout. waaw. maanaam li ma la mën a xamal mooy. waaw sëñ Mountakha. Ah. moom mi fi nekkal Seexuna Ahmadul Xadim. dafa yàgg doon Serigne Touba ba Serigne ba dafa yàgg doon Serigne Touba. Mm-hmm. moo tax jataayam bii Mbàkke Balla yombut. Mm-hmm. jataay bu jëfee ngi nii. doon Serigne Touba ba noppi. am at yim an. Mm-hmm. ba noppi mën a amuk dal. mën a lijjanti adduna bi ba nit ñi ak dof ñi ñëpp mën a wuy su bu wootee nit ñi ñëw dof yi dinañ ñëw man mii maay xalifa général de kullu dof bul yaakaar na xawma la man mii maay xalifa bi sëñ Mamour mbaay xam naa la bu baax jaara maa gën a doon dof yow ma ne barkib sëñ mu dab laay ginnaaw Baye Dof Mbaw maa toog xalifa Baye Dofum sëñ Ablaye Fall Ndar ah, yaa topp ci xalifa bi sëñ Mamour man mii maa nag nga ma topp ci déedéet mënoo ko ndax sëñ Muntaxa ah yooru nga tey moom moo woote. daf ma gën a am problème maa ngi yow tey. dogu naa ci sëñ mu Ablaye munoo doon xalifa bi. waaw maa la topp ci yow laa wax. munoo ci munoo jege ko topp ci topp ci topp ci topp ci xalifa bi. dégg naa ci maam Cheikh Fall munu leen ko. ndax dama ndax sëñ maam Mor mii. waaw. dama koy bàyyi xel te xam naa ko nga bàyyi koog moom rek ndax am na lu mu yor ci suuf loo xam ne. dama ne waaw. dañu ne ab dof. Uh-huh. ab def la da ngay njëkk a ci def. Ah, da ngay njëkk a def. Mm. soo ko def. dëgg la ndax ku dofut. doo def mhm. maam Cheikh Fall nee na mhm. doom ñi am bopp ba liggéey dinañ yonu waaye ñi ñàkk bopp duñ yonu ñi am bopp yonu de dëgg la de sëñ Modou Ablaye Fall Ndar laa muritu daan xar matt ca kër ga mattu mhm. ndoge yi ñu koy togg di ko yut sëñ saaliw di ko jëlee njaarim di ko yut sëñ saaliw jële ndoge yi njaarim indi ko Touba di ko toggaat fii di ko yut sëñ saaliw ba sëñ saaliw ñibbi sëñ baara toog ñu nekk feeg moom sëñ Sidi Mokhtar sëñ Mountakha mii dina fi yàgg ndax mooy sëñ Touba. amiin yaa rabbi ndax sëñ Touba du fi mos a jóg te mooy sëñ Touba. dëgg la waay waaye xalifa général bii ñëw toog. muy xalifa général di kullu dof. dogu naa ci Cheikh fan li may bëgg a wax mooy. li ma ci njëkk a fas mooy réew mi am jàmm. amiin yaa rabbi réew mi na sedd guy te ñun suñu borom may. ki gën ci réew mi man da moom laay ñaan anduma kenn de ki gën ci ki gën ci réew mi yàlla na toog amiin ku gënul ci réew mi yàlla bu mu toog amiin yaa rabbi ndax sëriñ bay fale nag fii la ñuy fale fii la gétt gi fii la ñuy daaje gétt bi ku àndut ak sëriñ bi kenn du la fal waaye ku ànd ak sëriñ bi ñu fal la waaye dugg naa sëñ Touba ne di ngeen am jàmm sëñ Mamor jërëjëf lenn dong laa xam ne laa lay sikke mooy bëgg ceeb waaye leneen lu dul loolu kenn gënu laa bëgg sëñ Touba kenn gënu leen a bëgg sëñ Touba ñoo ngi leen di ñaanal uh-huh. ci barkem ngërëm ci barkem ngërëm ci barkem ngërëm barkeb Touba barke suufu Touba sun borom defal leen fajuk aajo ba sëñ Cheikh Bintu wootee Ndar wax nga fa ci sëñ Fallou Fall ak sëñ Ablaye Fall Ndar ban ñëwaatee feet Masalik wax nga fa ba sëñ Jéli kinnam sëñ Modou Ablaye daanub jël na jox leen ko addee sëñ Ablaye Fall Ndar bul ragal de. barki démb lañ jógee maa ngi Safa. ma ne bisu suñ ma ne. ca France boo ragalee. déedéet boo ragalee. bul ragal de. man dama laa naw ndax Sidina Alioune lañ ma tuddee ba pare may xalifa général kullu dof. na ko am mépp xam. jaajëf. dof waaw jërëjëf ah, sama beneen moromu ah, xam naa ne sax moom sama kilifa ci dof yaa ngoog. Touba bis bu yàlla sàkk ah. mi ngi wane boppam. Cheikh Mamadou Mountakha. Mm. noo koy ñaan yàgg ak ak njabootu Serigne Touba gépp ndax maanaam bis bu yàlla sàkk mu wane kiimtaani Serigne Touba bis bu yàlla sàkk mu wane xarbaaxi Serigne Touba bis bu yàlla sàkk mu delloo jullit yi lislaam bis bu yàlla sàkk mu jajj si ci jaamu yàlla bis bu yàlla mu jajj ñu ci jaamu yàlla bis bu yàlla sàkk mu jajj ñu ci liggéey bis bu yàlla sàkk mu wane kan mooy Serigne Touba sëñ Mamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér yàlla noonu yàlla fayal Serigne Touba yàlla noonu yàlla fayal Serigne maa ngi ñaan ci màggu gi doon sallallahu alayhi wa sallam ci barkab Cheikhina Cheikh Saliou képp ku fi teew na nga ñaan Cheikh Modou Mountakha mu yàgg fi te wér ndax bu fi yàggee njëriñu lislaam lay doon njëriñu jullit lay doon njëriñu murit lay doon njëriñu Sénégal la doon Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm ci barkeb Serigne Saliou jërë ngeen jëf la ilaha nga xam ne ndeysaan indi tey may xel may xel yu bay faali tey gis nga ko noonu Café Touba tey fii la seen émission Café Touba Sa Ndiogou Sa Ndiogou kaay ñu naan borom Sa Ndiogou dañuy jëfe doomu xalaat Moustapha maa ngi taxaw ak koo xam ne ku baax la suñu sooy bu di jàmbaar di murit noonu itam Moustapha ba jox la kàddu gi ba kàddu bi ñëw Moustapha borom bàgg mi ngi ñëw ak borom kàddu yaa ngi ñëw

Australie boo nee suñu seex ñëpp mën nañu koo kenn day jàpp rek ñu doon suñu seex Fallou Ndiaye ci ne sa baax suñu seex Fallou Ndiaye moom dañuy yónnee boobu xam nga kooku tey xol bi sedd na ki jóg jóg mënu laa jot lu mu foog sànni la sëñ Mbackiou nee mu def message utal fa Baye Fall yi paax alaaji Mbàkke xoolal bàyyi naa ñu laal bàyyi naa ñu Seex Faal yi laal jant bi day participer Moustapha maa ngi woon ci Mbàkke waaw mu bàyyi Seex Ibra xel am naa xamoo bi muy liggéey ba baax Seex Ibra rek la teg ci yaram kanamam moo ne woon ñaar yi man Ibra Faal du ma xeex ak yow ñu ne ko mun a yëkkati jurul yàlla nga ne ma du àgg. ñu ne ko ak lan Ibra Fall mu ne togg aw ñam bëgg koo joxe nga ne du dem ak yor sama biir di ko yóbbu suñ nga ne du àgg. ma ne ko kon doo xeet ndax nag ku ko yëg da nga ko fekk muy mel. Baye Fall boobu fii gor na gor gor na gor na di gor di gor dëkk bii ba yem ci gaynde mu tëdd di nelaw mu bëmax ko waaw may liggéeyal suñ bàmm ngay nelaw waa boobu. kooku na ku ne ah na ah, ah, bu baax ci Masaalikul Jinaan muy murit euh, ngay murit saadix ñu fekk la ci bisu sikar si loo ñuy wax ci bis bi tey. waaw xanaa man bi ma leen gisee. dama gën a am dam dama doon dama leen di tiitaroo parce que taxawaay bi ngeen taxaw Massalikul naan taxawaayu ko Macky Faye ak Touba TV bu ngeen dikkaatee fii taxaw ko fii man damay gën a kontaan tey nag xam naa sama wax du mën a bari parce que euh, Mamor dafa am wax boo xam ne nii dafay day confirmer dafa ne ku jëf ba raw la mënoo wax a wax ba dab ko te mën naa ne wax ji tam dafa gën a sooxat wax ji day gën a sooxat bu yoonu Baye Fall parce que suñ mën taxaa bi mu waxee ne Baye Fall bu dëggal moo gënal sama bopp parce que man xaw ma ci sama bopp boppam lay wax te Baye Fall bu dëgg boppam lay wax foofu nag laa foofu a laajaat xam nga yéen ñaar bu ngeen taxawee du ma ñemee wax seen kanam parce que yéen taxawaay bi ngeen taxawoon Massalikul Jinaan rek àddina bépp dañ koo xam kon nag ñoo ngi leen di siyaare ci bis bi di siyaare sëñ Muntaxa te sëñ Muntaxa lu ko laal rek xolu Macky si fay nga laal kon nag ñoo ngi leen koy siyaare baax wax boobu daal moo a neexan trop ma ñëw nag doon ci def ma leen gis rek damay tënku loolu moo tax kontaan naa ci yéen. jërëjëf sëñ Ilimane euh, wax ji am na solo ñu ngi leen di siyaare bu baax sëñ bi loo ñu mën a wax ci bis bi tey. sant rek maam Cheikh Ramé Fall point man sët Cheikh Atmane Diop laa ma ca Congo waaw waaye daal bis bi sant sëñ Mountakha Bassirou rek ñaan ko mu yàgg fi te wér amuñ dara lu ñuy wax ñun tuut nañ ci wax waaye daal Cheikh Ramé point rek la ñu wax jërëjëf macha allah. jëwriñ waaw maa ngi ziar baax moom mii nag sëñ Mamor. waaw sànq ba tey mi ngi organisé sama sama wóllare la sama xarita sama lépp la ñoo yarandoo ci ñaari tali muy murid Sadix. Euh, fekk si nañ la ci bis bi tey. kon Moustapha ñaari na ana loo yëg waaw ñaari tali ñëw nañ tey. adduna bi mooy ñëw maam jom mi naa ma. sëñ Moustapha ñu ngi lay ziar baax di wax sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba. jërëjëf sëriñ Touba jaaraama Cheikh Rafal jaaraama maam Cheikh Rafal di ñaanal sëñ Mountakha Bachir mu yàgg fi loolu tànd ak wér ndaxte lii sedd na xol bépp julit waxuma la bépp murid mais bépp julit li sedd na sa xol di leen ñaanal yéen tamit ngeen yàgg loolu te ànd ak wér ñaanal Serigne Mbacke yu fay nag ci liggéey boobu nekk yàlla na ko yàlla kattanal yàlla na ko yàlla kattanal barke Seexul Xadim kontaan nañ lool jërëjëf jërëjëf jërëjëf Moustapha uh-huh. euh, boo demee Gabon uh-huh. xam ni sëñ Fallou Fall Cheikh Ibra da ko préparé bi mu ko dugalee école fils de Cheikh fils de chef ca Ndar mm. mook Serif Assane mi waa këram romb léegi uh-huh. ak sëñ Ablaye Fall Ndar ak sëñ Aliou Fall Mbawor maa ngi siyaar baax sëñ Cheikh Fall Mbawor Moustapha mm-hmm. dafa fexe ba mën a génn mm-hmm. mën a yóbbu mm-hmm. moo tax ñu ne ko sa ndaw danaa dem ba Gabon di yeenu ay saakoy rong di dugg ca gaal ya yori bong doo denc lëf ba muy maxe Moustapha sëñ Fallou Fall moomu moo daan taalal sëñ Tuubaa bant jalambaan ya ca la Maayomba dëgg la dem nañ fa. dëgg la ca lambar naa maa yomba. Mhm. boo déggee mu ko euh, soldaar sa yaa joxe sa doom. Fallilou Fall am nag texe. Fallilou am nag texe. sëñ Fallou Fall bi France naree am problème. Mhm. mi ngi mel ni problème bii naroon na am barki démb. Mhm. Moussa Ba xanaa moom sëñ Touba mooy solution. loolu moom loolu la yàlla dogal. sëñ Touba. loolu la yàlla dogal solution. waaw loolu la yàlla dogal. saa yu problème amee sëñ koy réglé. keroog bi Hitler moomee France. ba nangu fa ñaari dëkk. ba toog ci dëkk ya di naan café. budul woon ak sëñ Tuubaa France yëpp làkk allemand. waaw la de. Moustapha. keroog la De Gaulle wax ne. j'ai perdu la bataille. mais on n'a pas perdu la guerre. mu ñëw fii. ne bu Baye Fall jàppul ci xeex bi France am problème. fi mu ne benn Baye Fall bu war a ñaan visa France ñu naan la fii ngay jaar wartaam dëgg la bu dee gor Cheikh Ibra Fall moo libéré France dëgg la ci lay tuleer woon ne si ce n'était pas les noirs je bombarderai la France dans vingt quatre heures je mettrai De dans un bottet et je lance dans l'océan Atlantique mmh. mmh. dana bu fekkul woon du nit ñu ñuul ñii mmh. Baye Fall yi lay wax. waaw. jël dégol. def ci butéel. lakk ko ba mu ñuul la wax. Mhm. boxom ko mu doon këriñ. ma sol ko ci butéel. Mhm. sànni ko ci géej gi. Mhm. mais xam nga lu ma ci neex. océan bi mu dund. moo ma gënal ci océan yi. Moussa Ba xanaa xamoo géej gi dañoo bari. waaw am na océan Arctique. Pacifique. mer Rouge. Méditerranée. mais océan yooyu yëpp xam nga buy seen sëriñ Atlantique ndax ci la sëñ Tuubaa jaaroon keroog la romb waa Indraloos machine ba roulé ba weesu Mandarloos Abdoun le capitaine blé ko teeru bawoo Angleterre lakkiy tuuru yoor yoor la gaal tebbi jëm Conakry bisub dibéer noonu yaa nga ngiri ngiri ca saani suuf la gaal ga costé dun buñ naan tubak marañ yey konté foofa la bamba njëkk a kur maana ak timiliku kur booy ñu maana mu romb leen tefe jëm beser wali laaj sëriñ Touba ñu naan ko baafuli keroog la ga jëm booma ba wéy buyaama ca waaxi matadi ak buyaama Hmm. congo français hmm. longu hmm. bulwaar sëñ bamba romb na leen bu yàgg kii ya doyu gwaar weesu na brazzaville ak a ñu naan ko yow mbindeef nga am ki bind am ki bind <laughs> dañoo jommi booba jaaxle nañ boole nañ koog nag waaw nag wa naaw ñuy dégg ñoom ñu boole koog gaynde lors de sa déportation fut enfermé dans une cellule de jardin d'essai de Saint-Louis pendant plusieurs jours avec un lion affamé gaynde gu xiif gaynde ga waaf mel ni sëñ Moodu am di mel sëñ am di Moodu mel na ci kanam sëñ Muntaxa maa wax loolu maa la ñu dugal ko ci géej gi géej na ko mel naa ne betteex taxawal sama kaw julli waxtu wi ñoom ñuy dégg waa Kabinda maa la maa la wax loolu yugal nañ ko ci luy ci géej gi zéro ñu dugal ko ci pour mu génn boole nañ ko ak ay xorondom yoo xam ne nag buy peser quatre cent kilos dañ koy lekk ci une heure de temps xorondom yi benn laalu ko ci xiifal nañ ko du lekk fu mu mës a dàppoo njàpp mu tey yeew nañ ko yeew ko di ko fetal wahabani wahabu fi sulaasa maa yoxrajurun xasaratan fi salaasa ñoom ñuy dégg moo tax na biñ ko indee kabinda waa réew mi ne ko nag ñun xam nañ ne moom doo nit. waaye mbaadu yàlla mi bind jaam ñi moo fi wàcc di ñu jommal. moo tax ñu ne ko mbindeef nga. wala ki bind wala ki bind. mun leen maay liggéeykatu rasulaay. alayhi salaatu wa salaam. xalama ni rahmaani fi safina bi anna nii xadimu bi anna nii xadimu sil madina. waaw wax nga dëgg waay Safa. waaw dëgg la. sunu waajee defar lépp. dëgg la waay. taal bi naroon naa tàng. Mhm. nii sëñ Mountakha fayee coow li. Mhm. président Macky kat. Mhm. ku ne xam na ni troisième mandat. mënoon na koo jéem a def. waaye fii la ñëw ci kër gi sëñ Muntaxa ne ko teg ko ci suuf ndax jàmmi réew moo tax sëñ Muntaxa nañ fàttali ko moo teg Ablaye Wade ci suuf teg Macky Sall maa la wax loolu ne leen lu ngeen di xuloo xanaa gisu leen leen yàlla defal booba ñu ngi ubbi Masaalikul Jinaan ah boobu bis dootul am waaw hors série la waaw ah, walaay nga dëgg dootul am wax lan ngeen di ñoo taxawani noonu ba ci kanam. Moustapha Moustapha bu ma duggee foofu sax. Mm-hmm. mën na foog ni damaa politique si. waaw te politique gu ma. waaw da ngay wax ndax man sëñ Mountakha mooy kan. fi mu ne nii sax loolu ngay wax. fan yii sax dinaa dugg ci biir laaj ko ndigal mu jox ma réew mi 2024 <laughs> Mame Mor Mbaye mooy doon président Sénégal incha allah réew mi dinaa ko defal jël sikar si ñu koy def ci palais ba Baye Fall yi dinaa yor réew mi ngeen di sikar ci pale bi. bu soobee yàlla candidat la jërëjëf man maay candidat Cheikh Rafal dinañ sikkar ca pale la barke borom Tuuba jaa ngeen jëf acca euh, mbokk yi ba tey gis ngeen ñu ngi taxaw ak Serigne Gora Gueye maam Cheikh ñëpp xam ko muy suñu magum taalibe di murid saadix di Baye Fall ngeen yàgg dégg sikar su neex si nga xam ni mi ngi koy sikar waaye nekk fee ci Kaolack ñu koy siyaare di siyaare Baye Fallu gàmmu bàyyi ndonga Thiam ak mboolem magi taalibe yi tubaa yooyu nekk ci Kaolack waaye Cheikh Ibrahima Fall Lamp mu baax mi yaakaar naa ni yéen ñëpp xam ngeen ko ci xam-xamam bu rafet nekk ci wetu mboolem kilifa yu baax yi nekk ci tubaa ku ngeen xool rek waaye rawatina na kër Sëñ Abdul Xaadir Mbàkke waaye noonu la mel ak mbooleem njabatug Sëñ Tuubaa gi nga xam ne ñoo ne fii ñu àndoon maak moom 2018 makkatal mu karam sëñ Abdou Samad mu sëñ sooy bu yóbbu woon ñu def fa aj gu am solo man ak moom ak sëñ Gana Mesere sëñ Am Diop sëñ Abdou Lahad Diouf ak yu baax yooyu euh, damay bàyyi xam naa sëñ Mamor dina ñëw ak moom tuuti ci bis bi waaye sëñ Gora ginnaaw boo nuyoo say kàddu dañoo bëgg nga yëkkatil ñu tuuti ay baatu sikkar boo noppee nag ñu ñëw ci Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridine bisimilah. waaw ah, moom de sant sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaan Cheikh Mountakha Bachir Mbacké. yàgg fi loolu te ànd ak wér. ak si anu fi loolu te ànd ak wér. di am mbégte lool ci bis bii tey taalibe yëpp bëgg nañu ñëpp bëgg nañu kenn du si arafaal jërëjëf waaw ñoo ngi ñoo ñëpp la ilaha illa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 Seex Ibra moom raw na ay maasam te di fu ko jot Bamba ko seppi mu raw yaaram binam faala Seex Ibra raw na ay maasam mu faala inna suyooxa wa asaaba suyooxi ma an ñooy say jaraaf nga di seef yaaram binam faala inna suyuuxa wa ashaaba suyuuxi ma an ñooy say jaraam nga di seef yaaram bi nam faalaam si wal mbakki na hum soodatuna abadan ku xam ni du ñoom du yow yaaram bi nam faala law yam daw suara kullal kiraami ma an ma way laman yaa masaf yaaram bi nam faala Cheikh Ibrahima raw na ay maasam te deefu ko jot bamba ku sippi mburaw yaaram bi nam baala jërëjëf sëñ Gora jërëjëf sëñ Gora kon ñu sëñ Mamor ñu bàyyi la ak maam Cheikh Ibra waaw Moustapha kii may bëgg laaj waaw Moustapha kii may bëgg a waxal man gaa yee man kii laa faa na leer aw ma moom sago waaw lan moo saf xam-xam bi personnalité bi mhm. bëgg sëriñ bi. waaw. Mhm. muy produit yoon wi. Mhm. waxtaane na sëñ Tuubaa ci réew yëpp. Mhm. tey nag moom lay bàyyi Cheikh Ibrahima Fall Lamp. tey nag daa ni sëñ Muntaxa daa dugg ci gardam. waaw. Ibrahima la tudd. ñu dàkkantele ko Lamp ba noppi. mu sant Fall. Cheikh Ibrahima ginnaaw bu ma la nuyoo ci sa bis bii. murid yaa ngi leen di déglu. mu yaa ngi lay déglu à travers tout le monde loolu wax waaw ah, kay jërëjëf euh, sëriñ Mamor jërëjëf sëriñ Moustapha sama seexu Makka walaay walaay Fall sëñ Mamor yow li nga wax loo yàgg nga wax la ndeysaan yàgg nga ma gis uh-huh. di ma wax ne ma gars yi man la ñuy topp waaye man yow laay topp uh-huh. waaye loolu lépp nag dara waralu ko lu dul sëriñ bi rek uh-huh. Cheikh Mouhamadul Mountakha moom mooy Baye Fall bu mag bi nit buñ ne murit la te nga gëm ne murit ga dëggu la xoolal fu mu teg Seex rek dëgg koo ma mën a wax lu mu bari bari wilaaya ak lu mu baax baax mhm. lu mu bari bari xam-xam mhm. yaakaar sëñ tubaa di sikki sàkk Seex Ibra Faal man banaa waaw dëgg la mhm. li ñuy lambi murit bu mat murit Baay Faal bu mat Baay Faal mooy fu mu teg Seex Ibra ndax fa mu teg sëñ Tuubaa moom dong moo xam sëñ tubaa tudd yàlla gii nag nga xam ne moom la ñu sëñ bi dajalee tey ñu di ko def muy baatub laa ilaha illallah laa ilaha mooy naf yu maa laa yarda illallahu mooy yusbitu kulla ma yarda loolu nag boo ko boolee mooy al kawnul kawni xajut ci balance moo tax pour xool yi mën a baax mën a dal allasina amano wa tatma innu qulubuhum bi sikrillahi ala bi sikrillahi tatma innul qulub yowmal qiyaam alal demu fa doom demu fa yow ma laa yan fahu maalun wala banun illaa man atallaha bi xalbin salim xol boobu nag li koy defar ginnaaw boo dëggee rëy dëgg njistal dëgg iñaan dëgg maanaam bëgg àdduna dëgg yooyu soxor yooyu yëpp nga dagg ba xol bi set wecc li tax xol bi mën a àgg ci yàlla mooy laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sëriñ tubaa nag nee na baat bi dañ ma koo defal ci mbooleem maanaam li ma taalif lépp yàqudun asarallah yàlla wombatal na ma mbootum laa ilaha illallah defal ma ko ci sama sama xasida yi mhm. ba noppi leen xaada indal bahari mhm. maarumtu bi rida wali xaada sirrul ismi bin nasmi wa nasri ismulaahil axsam muy laa ilaha illallah ndax boo bindee laa ilaha illallah fukki araf ak ñaar la bindal wàññi mhm. muhammadu rasulullahi fukki araf ak ñaar la bindal wàññi cheikh ahmadou bamba mbàkke fukki araf ak ñaar la bindal wàññi moo tax sëñ bay jaxate ne boo jëlee allahu moo tolloog Bamba Mbàkke 66 la allahu juróom benn fukk ak juróom benn la Bamba Mbàkke juróom benn fukk ak juróom benn la mu ne ko nuru nga nit ñi aw defin nuru nga nit ñi aw doxin waaye nuru nga yàlla aw defin deefu la xam deefu la miin yàlla nga yow ji nurin yonent bi salaa salaam wax ne képp ko wax baat boobu Anas ibnu Malik la téye ci loxoom ne ko képp ko wax laa ilaha illallah xaalisan muxlisan daxlal janna képp ko wax baat boobu te gëm ko mhm. moo tax yàlla bi muy jàngale baat bi daf ne fahlam annahu laa ilaha illallah na ngeen ko xam yontu yàlla yunus bi ko jën wi wane mu ne ci biir lëndëmuk biiruk jën bi ak biiruk géej gi suñ borom da ko ilham baatu laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin suñ borom ne ko fa lawla annahu kaane minal musabbihina la labbisa fi badnihi ila yawmi yub'asun sëñ Tuubaa dooga àdduna ko amma dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yuksiru ndax waskuru laha kasiran sikran la yàlla mu ne amma dawaamu sikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yuksiru qad qultu zalika bila israari wala ubali bi sawi inkaari daan fa kullu man saalani fa li jawaab qabla wala tujaadilu ahlil kitaab li may wax ragaluma ci ku ma linkaar ragaluma ci ku may sànni xeer lépp lu nit di wax laa ilaha illallah moo ci gën te soo ma weddee man Cheikh Bamba danaa la yebal ci lu jiitu wala tujaadiloo di nga fa fekk inna salaata tanha anil faxsaa wal munkar wala sikrullahi akbar Cheikh Rafal lu yàllay xool di ko xool di ko xool ba ne xaasa akbar ba naa lépp jàpp ci moo tax sëñ Tuubaa suñu borom da koo béegale baat bi yaqudu ni yaqudu ni asrar laa ilaha dafa wax ne suñu borom daf ma bégale baatub laa ilaha illallah yaqudu ni asrar laa ilaha illallah tabusira dëgg la tabusira laa ilaha illallah moo tax nee na bi ma guuta mbaaye baat bi yëngal ko ma ni mu toll min adama alayhi salaam ila sayyiduna muhammad alayhi salaam kalimatu tawhid boobu moo leen fa indi woon Mamor yonent bi wax na ne ku wax laa ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ci benn bis nee na amul kenn koy ne ci kaw suuf maanaam say bàkkaar yéem la ba nga wax baat boobu donte bàkkaar yi toll nee na duufu géej la ko ba mu far. ndax ñi seetaan ko topp. laa yéen seetaan topp leen ko. bàkkaar yi daa bari. laa ilaha illallah. allahu akbar wala hawla wala quwwata. illaa billah rawaa u Tirmisi wa Abu Daawud yonent bi nee na képp ko wax baat boobu ci bis yàlla jéggal na la sa sa bàkkaar yëpp donte bàkkaar yi toll nee na duusi géej dellu waxaat ne ku wax laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yonent bi nee na ku ko wax mel na nga ko goreel junni jaam mel na nga ko jox ñë mbooloo mu xiif ñu lekk te yàlla jéggal na la sa bàkkaar yëpp te yombal xiyaam ku la fa gën mooy ku fa ku ëpp leen lu mu andi baat boobu. gis nga gis nga moo tax Serigne Touba dafa wax ne yàlla womatal na ma secret bi laa ilaha illallah illaa tawaali fa yaqudullahu asrara laa ilaha illallah yàlla womatal na ma secret bi laa ilaha illallah defal ma ko ci sama xasida yi womataatal ma ismu laa axtam muy tur bi gën a màgg tur yi muy laa it Sëñ Touba nee na amul lenn lu nit di wax. te tudd yàlla gën afdalu man na taxoo la wax lu lu gën ci lu ñuy wax ci làmmiñ mooy laa ilaha illallah ndax boo ne laa ilaha mooy dàqal nga yàlla lépp lu yellu ci moom boo ne illallahu saxalal nga ko lépp lu yellu ci moom moo tax nee na baat bi bi may dem ci géej gi benn saalum saalum daa dugg ci bato bi fekk ma fa ne ma damaa bëgg nga xamal ma baatub laa ilaha illallah sëñ Tuubaa xamal ko baat bi jox ko ko waaye nee na baat bi bi ma ko yàlla joxee sëñ Tuubaa jàng gis na ne képp ku wax laa ilaha illallah te def bàkkaar yu mag yi ñuy def yëpp man fi laa ko waxee borom xam-xam yëpp nañ ma déglu te dama leen di delloo ci saxiihul muslim ak saxiihul buxaari yonent bi nee na ku wax laa ilaaha illallaah boo defee bàkkaar yu mag yi ba yàlla di la pini jaxanama la lay yóbbu jaxanama day na pini dootu am jaxanama day gént ña ñañ fay dugal ñëpp mooy ñi am tomb ci taw tawhid mooy koo xam ne mas naa wax laa ilaaha ca gëm ko dañ leen di jëlee foofa ji leen ci suuf ni ñu jiyee kemb ni comme ni ñu jiyee gerte ñuy saxaat sax ñooñu bu leen dugalee àjjana dañ leen di tuddee ay jaxanami yuul léegi bu ñu leen laajee ñoom ndax yéen mas ngeen a am lu leen naqari ci àdduna ñu ne déedéet ndax mas na ñoo wax laa ilaha illallah jullit bi wax laa ilaha illallah du dem sawara moo tax sëñ Tuubaa teel doo artu ne wala tuaadu man raaytum faaxu yuxriju laa ilaha illallah ku ngeen dégg ci gémmiñam laa ilaha illallah di ca génn bu leen ko noonu gis nga gis nga julli julli boo ko defee te te tudd yàlla at ndax baatub zikr mooy alquran mooy tudd yàlla mooy tasbihaat yi lépp baatub sikkir la ala bi sikkirillaahi tatma'innul quluub suñ borom wax ne wa man ya'su an zikri rahmaan nuqayyid lahu saytaanan fa huwa lahu qarinu képp ku bàyyi laa ilaaha la wala nga bàyyi alquran rek am nga xaritu saytaane buy ànd ak yow di la digal ngay def mu di tere ngay bàyyi kon booy julli boo nee allahu akbar loolu lan la magal suñ borom faatiha bi ngay tari lan la inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la hafisun alquran zikr la alquran ji ngay jàng ci biir julli gi zikr la sami allahu liman hamida lan la loolu rek a tax julli gi julli gi moom sportif yaa ngi koy def ñi sport ñi ngi def li gën li ngay def appuyer avant sëgg ak sigi ñi sport ngi koy def amuñ ci amuñ ci fayuk yàlla mais julli gi li tax mu am sens mooy sikar bi ngay tudd ci maanaam tudd yàlla gi ngay tudd yàlla ci julli gi moo tax julli gi am importance waaye moom intéresse wut yàlla waaye allahu akbar zikra ngi noonu fatiha zikra ngi noonu sami allahu liman hamida zikra ngi noonu rabbana walakal hamdu zikra ngi noonu subhanallahi wa bihamdihi zikra ngi noonu subhanallah wa bihamdihi yooyu yëpp boo ko génnee ci julli gi daanaka yaa koy sport yéen a bépp ndigal nag bu yàllay digle man nit mën na koo def du ci am fayug yàlla ka kaaba gee ñuy tawaaf fi ne ndigalul yàlla doo nga ko wuuteleeg jaamu xëram war ciw doj di dox ciy doj di sànni doj di wari doj ndigalul yàlla képp moo wute moo ko wutaleeg jaamu xiram ndax am na ñu daan yett ay xeer di ko jaamu am nañu daan jaamu ay nag am nañu daan jaamu jaam kon ndigalul yàlla li moo ko wutaleeg jaamu xiram lépp lu nit di def rek te ndigalul yàlla andu ci la muy def ak neen la julli gi ndigalul yàlla la moo tax sëñ Tuubaa ne dee leen julli di ko jubal bu ngeen dee julli di ko jubal bu ëllëgee lu ngeen dëngal julli jubal ko waaye bu ngeen dee julli di ko dëngal nag bu ëllëgee lu ngeen dëngal julli lu ngeen jubal julli dëngal ko julli di ko jubal nag Cheikh Ibra nee na boo nee allahu akbar ba baa ngay sëlmal sa xel bu fi dëng daayee benn jamono jóge ci yàlla benn carse rek nee na yow xamoo lan mooy julli ndax da nga am contrat ak sa borom waaye yow man mi nga xam ne damay kàbbar nag man xam ne amaguma dépense sama xel maa nga France sama xel maa nga Angleterre ah ma ma nga nangam amaguma dépense d'accord nag boo jullee ci sariya rek wa maa jaala aleykum fi diini min haraj yàlla deful ci diina ji xat-xat soo ko jullee niñ la ko waxee donte nag moom maanaam euh, mu boroom xam-xam yëpp dañoo wax ne am nga julli waaye boo demee ci mu tasawifoo ni ñoom dañoo wax ne julli moom boo nee allahu akbar lu dul yàlla rek màggatu ci sa ci xalaat ci jëf ak ci wax mooy lu jafe Cheikh Ibrahima Fall bi mu ko daan def benn tànk bi lay bank taxawal benn bu taree taree taree taree taree taree ba guddi gi xaaj mu wàcce benn tànk bi yëkkati bi ci des loolu nit da ko man moo tax nag suñu borom baaxee ko baatub laa ilaha illallah mu di ci defar xol yi di ci génn rëy ndax xol su baaxee rek lépp baax su bonee rek lépp bon yonent bi nee na inna fil jasadi mudduqa isa salahat salahal jasadu kullu wa isa fasadat fasadal jasadu kullu mbokki taalibe yi murit yi sëñ Tuubaa yi noo ngi ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi te wér waaye di ñaanal sëriñ Amdi Mbàkke ak sëriñ Amdi moom sëriñ Muudu Mbend Fall mu yàgg fi lool te wér di ñaan sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul lii xam ne waayam jaa ko daan def sëñ Musaa Ka ko nii mës xibaar ak jébbalum bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ni Bamba waaw